waaye ah, xam ngeen rek ne eh, ki nga xam ne macha allah eh, Sénégal yëpp namoon nañ ko am ñuy laajte ndax day ñëwaat ndax du ñëwaat eh, kooku di kan Sumbulu Bathily chéri Alaaji Jo am amin Abdoulaye Diop Xaas man dama dama sax changé tur bi léegi dama koy woowee Sumbulu Sumbulu Diop Xaas Sumbulu. it's a ah, pleasure again di la di la dalal rek once more again on seetu bi. <laughs> moom dafa jëlee affaire bi neex deret sax. waaw ah, seetu bi neex. am na ñoo wax rek seetu ma ne bi neex parce que man neex neex rek laay dund sama àdduna. waaw man nay neex rek ci àdduna lépp lu ñëw rek ma jàppee ko mu neex. même bu mettee sax dama koy def mu neex loolu ci sama xol moo tax ma koy mën a supporter maa ngi nuyu képp kuy seetaan émission bi ci télévision Futurs Médias di wax ne li mooy seetu bi dañuy ñaan yàlla rek boo ko seetaanee ba jug fi gis fi sa bopp comme ni ñu ko hmm. bëggee rek seetu baa ngi nii. ma ànd ceeg sama xarit yi sama xarit yu maanu yi da ngeen maanu dangeen ngeen a réglé da ngeen a jëriñoo naxtaan waaw <laughs> ma leen di ñaanal jàmm rek ñu yàgg ko toog fii rek di ko péerloo incha allahu rabbi euh, it's it's a pleasure comme ni ko waxee si anglais rek euh, pleasure mooy plaisir euh, nga retour nga retourné back dellu si waat si family bi ñu daal di continuer liggéey bi kon boo ko ñu doon laajte ndax Sumbulu she's gonna continue mi ngi nii tabaarkalla macha allah day continuer li nga xam ne mooy liggéeyam waaye xam ngeen ne rek ne balaa émission bi di start amoon waaye jar na waar jar na ma ne ko jaar naa Dakar jaar Thiès. jaar Casablanca tabarkalla. jaarit tey la tey avec seetu bi rek. tey lay mi nit fa jaan ndaw bari dangar. <laughs> mais yow namm naa la Assane. yàlla xam na ni maa la raw namm naa la torop. depuis cey cere. depuis cey cere cere ji génn yëngal réew mi tabarkalla ku ne bëggoon def cey cere. waaye TFM. bari feem kenn du TFM roy du nuroog piir kenn du moom nee naa ko jiitu na leen sànni caravas uh-huh. daan leen jël bu kenn dootul miin lii la yàlla dogal mais est-ce xam nga Assane dafa dégg français ah je suis fait les bancs quand même mais yow ñaanalu loo ma ba tey ah quand dama naan naan tabarkàlla xale bi nga xam ne fa la sa yaay dalaa ñaanal sa baay gërëm la def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen bu ngeen ko deful ni ko yàlla def kat <laughs> et mu caravasé leen bu ngeen tëdd sa Dieu vous sa Dieu vous protège sa oh Dieu vous garde sa Dieu vous longue de la vie dara à vous prospérité bu doon français téeméeri tubaab daal waaye nag ma tourné nag fekk fi nag mu jëm mbay pire ki nga xam ne fa tubaarikàlla kéwal du tëb doom jë déedéet déedéet macha allah fa tubaarikàlla ministre de la lunette et de la sañse laa ko tuddee dëgg la bu sàjjee macha allah réew mi ñëppay kontaan cey mbay macha allah sa juufu finis waaye tabarkàlla nag jéeg jàmm njëriñ bi kenn demul bala doo jéegu matt bu tooy doo alla funti doo gajangeer doo waye waye doo xoolatu banaana macha allah e eh, séeri Ablaye Diop xaas borom ñaanu xaas bi kenn demul bakoo waaye fa tabarkàlla sa juufu finis avec son mari <laughs> sa jëfu finis namoon naa ko trop namoon naa ko de bu bees la moo ko moom ñu laaj ko français ñaan la daal I think I may God bless you may God bless you. yow kenn doon tontu mbay engrais bi ñu xam nga lu gën a neex xam <laughs> a neex. Mm-hmm. ñëpp ñoo bokk lu ñuy def maanaam li mu yor ne ñëpp ñu koy def. mais nga andi si li nga xamante yaa ko moom. muy touche spéciale boo xamante ne muy français bu ko làkkee nga xam ne su waxee baat bi boo ko déggee te gisoo ko da ngay xam ne moom la te dafa am importance ci li muy def. ba pare mu mën ko lool nag macha allah ñu leen ñaanal nga yokk ba yëg ko xam naa ni fii moom day gën a neex. comme egg si bi bi neex. day gën a neex. <laughs> Uh-huh. tey lay mel ni footballu dof tous bii corner. bii mi-temps bii. arrière ba di arrière daanu sax bii avec seetu bi rek. c'est tout à fait possible c'est excellence ordinaire. rek euh, ku njëkk a woote léegi léegi nii rek euh, dañ lay teral euh, ba pare tamit dañuy ubbi line si képp koo xam ne woote nga dañ lay teral ba pare la li nga xam ne mooy saabu saabu boo xam ne mun nga koy use ba weer bi dee maanaam saabu bu bëri dañ lay may kon boog xanaa saabu bi yow xoolal rek. ah déet yow yow mi nekk ñeeñoo koy xanaa yaay faal nga waaw yaay Fall laa. ah yaay Fall yaay Fall de moom lu baax la moom. yaay Fall daal bu toog nii rek jàkkaarloog télé bi. jeex na. daal di jël saam rek ne foog mu dugg oote ki sumbulu. Mhm. ndax sumbulu moom dama koo sopp. ndeysaan ndeysaan sumbuloo ngi yow Sëriñ waaw yaay Fall noo def. di woote sax ci ay télé franchement. ndeysaan. waaye nag tey nag xaw ma sax lu ma xirtal ba ma def ko ndax damaa jàkkaarloog sumbulu rek. xool euh, émission bi ni mu demee rek ma ne di bàyyi ma wootee. Mhm. yaay man bëgguma di kii mooy loolu. yaay Fall kontaan naa. maa la gën a kontaan. yal na la yàlla fay sa yëg-yëg. amiin yaa bi yàlla na barkeel. sumbul di la ñaanal yàlla. ndeysaan sëy bi yàlla na la si jaboot. amiin amiin sumbul maa ngi lay seetaan guddi ak bëccëg. ndeysaan barki Serigne Fall. te man wër na ma ni li ma lay ñaanal dana am. incha allah bu soobee yàlla kontaan naa yaay Fall. amal jàmm léegi yow yaay Fall. waaw. ndeysaan xam nga mën nag samay nit ku leen woo wax leen ci wax leen lu baax. mën la man damay defanteeg yow ay baax baax. loolu dëgg la. moom teraanga koy fay. dëgg la bu dee ay wax la sax yow ba bu ma xool bu dee ay wax la sax dafa neex. xoolal may naa la may naa la ñaari junni ak keesu saabu fanikoo sa teraanga ji bari na de mbay loolu de laa def ci yow xanaa kontaan ga ah xam naa ne kontaan na day daw gaaw ñu jël ko sa teraanga jee bari mbay ndeysaan bilaay sa teraanga jee groupe Futurs Médias rek ñu <laughs> teraanga ndeysaan kontaan naa rek yaay Fall li neex na fii mooy mhm. fan la am toog di la waxtaanal toog di la waxtaanal waaw ba pare di la wéttali nga toog sa biir néeg su mu laaw la ay teraanga waaw ñu jàkkaarloo. waaw ñu lay bongool. waa boo bëggee dugg woo te ñu bongool la ñu waayal la ku la neex. Oh. lu ko dàq ci àddina. dara mais est-ce que xam nga nit mun na jënd lu nekk si àdduna ba mu des happiness. adet nit ki yow yaa ko may sa bopp. ah nekk nit nekk ci jàmm. Viviane way na ko ah, ne mii su ma kiyalee euh, tonton Youssou bu mu naan enjoy your happiness. waaw nit nekk sa jàmm ba pare xañ sa jàmm yow. ah ko nangu kenn. ah ni nga waxee sax doo ma teree. doo ma teree dund doo ma teree dund Viviane way keneen muy ah tere ma dund bëgg di dund yow daal depuis laa sukk yaa ngi fi jàppanteeg Viviane. du ma ko nangu incha allah naa la yóbbu mais dëgg la sarayul kenn. awa dëgg la awa awa comme dañuy wax waxi dund moom damay dama fay jaare rek wetee happy birthday sama xarit bi ah. mhm. ndaa ba Ndiaye ngumba mi ci yoof wax dëgg fa yàlla nit ku baax ki nga xam ne ñëpp bàyyi nañ kook man mhm. mu jàpp rek taw bàyyi gore lool bu doon dégg xëy na sax du tee dëgg la muy nit ku baax ngumba mi ci yoof ah maam waale mi ci mbuubaan ndaama maa ngi lay ñaanal nga gudd fan yàlla bàyyi maag yow man ak yow ba aljana ci barke Mouhamed nit ku baax nga nit ku yaru nit ku am sutura nit ku am teraanga nit ku ma bëgg ma bëgg la maa ngi lay ñaanal nga dund ko ay at yu bare adama war nga jëf jëflanteeg ñoom ba bis ñëw ñu fay la ko te keroog war nañu ma ko waa Gunaas mënuma leen a fay mënuma ko xale góor yi di di xotti seen mbubb yi parce que kenn mënatul woon jàll. Oh. ñuy xotti seen mbubb yi di ma ëpp hmm. di def la tout pour pour bégal ma man nag boobu mbégte bi àttanatu ma ko woon. waaw foofu fekk mbaax mbaax mbégte moomu àttanatu ma ko woon. waaw vraiment bu sa waa ko ñëpp génn mobilisé jàppale la ci li nga xamante ne tey moom nga def ba pare xamal na ma sëy bi du yow rek yaa ko sëy ñun ñëpp a koy sëyandoo. <laughs> macha allah. leen sa jëkkër takk na waa Gunaas yëpp sant yàlla la alhamdulilah. ma leen di ñaanal yàlla na jàmm sax képp. baax fekk la fa. ndeysaan na nga fa delluwaat mbaax. wallaay dëgg la. yow bi nga bi nga bi nga juddoo Gunaas màggee fa yàlla indil la fa ak mbaax da ngaa jël mbaax gépp nga indiwaat ko gunaas moo tax gunaas rent boobu sa wallaay jox na lépp euh, nit ñu bari woon nañ lool daal man daal euh, euh, kii sama caméraman ba sax nu mu tuddati <laughs> ay waay sama xarit ba dée musuma ko fàtte li ma bëgg a wax a càng sama biir xel bi yow yow Cheikh yaa ngi may fàtteloo <laughs> mais yow Soumboulou <laughs> ah, ah, keroog jooy naa trop. dafa jooy. dañ ma dañ maa naja naja naja naja naja naja naja naj ba nga xam ne Demba ah, Demba Ndaw di ma jàppale pour ma mun a dugg affaire bi kii Soumboulou nga ne ma dugg see nu ma mel. <laughs> dugg see périg bi moo moo jaar côté bi mu xaw a poussé di jooy na ma dama sonn jooy jooy Gambie laa bëgg a fekk toj ci toj ci toj. foofu nag dama ree loolu moom bokk na ci li ma bëggal. mais yow eh, samay jooy. <laughs> dama doon jooy ndax émotion mais bi awa duggee période bi jaar ne ma gis xefu awa yi xaw a poussé ma gis mag maquillage bi te man ci suba ji ñoo àndoon awa était toute belle macha allah lépp correct lépp nekk place am mais awa <laughs> man bi may dugg si dañ ma xaalil yoon bi nekk mu ngi sama ginnaaw ma bàyyi ko ci ginnaaw man daal maa dugg ba toog toog naa ay. joojo la joojo ba tarder joojo la awa di doog a dugg si. joojo ba tarder nekkee mënu woon dugg naan ma <laughs> dëgg sant yàlla alhamdulilah loolu loolu tey la neex a nettali. ma ne Demba ma ne Demba Demba c'est quoi ça. Demba la man xaw ma waaye groupe Téléfutur euh, Média tamit euh, njaga euh, def lu am importance parce dafa ne dem leen ngeen filmel ma sumbulu suba ba guddi ñu topp ko ba mu jeex tàkk loolu pour wane rek ne am ah, defal nañ ma lu rëy liggéeykat nga tamit moo tax njaga moom si ku mu sonn day fekk yaa ngi liggéey sa liggéey mu jàpp ci yow bu baax a baax Assane xam nga man affaire yi su seddee du ma neex dëgg uh-huh. man damay bëgg affaire yi di yëngu daray sedd baaxul tabarkàlla parce que fi ngeen nekkoon a neex. macha allah ngeen koy gërëm di wax compétence am. la belle compétence. si mbay barke Rasulullah Assane moo tax. ah xam nga ni yow sa yaay da laa gërëm. jàppal. jàpp ci mage radini Mr Prince noonu le kon Adama Barrow way naa la nangul Miss Lady Yai Baba Barrow way naa la nangul ma Gambian people I wish you the best Seydou maamu Fatima way na la nangul yaayu Rashida maarawul bisub yaayum Asise Ablay Gora Waly dégg naa na fante ah fante na fal na ma ku ne am na ci yow mi may bégge noppal nga ma fante Waly yee sama bibi woy naa ko bibi mooy chéri may na bibi woo naa nan filiba way naa la bibi jamiñal Zahra bibi woo naana Mariam madam jëy ay dara Mariam mooy yaayu Eza ay dara Mariam bu na ki la noppal nay baatu jaag noppal na ma ki la noppal ndey baatu jaaga noppal na ma waaye madame Diop Seydi Seydi Alassane na ma ku ni na ki la noppal ndey Binta Siise noppal na ma na ki la noppal Bakari Anta Jéeme noppal na ma ki la noppal ndey faatu jaago noppal na ma mu na ki noppal ndey faatu jaago noppal na ma sama yaay sama yaay sama yaay faama juuf sama yaay sama yaay mama jaage sopp yéen a moom lii dëgg dëgg yéen moom lii ati yi jasi del déglu del xool